ak sama xarit bi nga xam le grand bi ngeen xam le grand journaliste Jérôme te ñu ma jur waaw Jérôme moom dafa doon koo xam ni incha allah le 8 décembre ci lay njëkk dem cathédrale incha allah moo may accompagner moo ma yóbbu buñ ca eggee nag jeunesse bi soxloo ma leen ci biir <clears throat> ndax mission ma fa yóbbu ak invitation d'honneur ci dialogue islamo-chrétien jeunesse bi lu ñu xër xër xër xër ci biti la ñuy yam jalonnement ñaari jalonnement yoo xamante ni bii du ñu jógee cathédrale ba buñ ko jubee vingt-huit mètres foofu lañuy ñuy yem ndax ku ne xam na seen discipline ñoom seen discipline kenn waru faa yóbbu yu xumb booy dem si barab ñu invité la fa da ngay fexe ba teggin ya ñu am ak warma ya ak dalga nga àbb ko ba jóge fa bu fi la yàlla bindee ci rajax rajax boo fa jógee nag nga rajax rajaxi su ma ñëwee su ma ñëwee soppil la rajax rajax ja ni la del defe nii jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. gis nga fu ñu koy waxee ci mbelo ci mboolo koo xam ni waxoo ko ñi ko wax bu ñu noppee war ngaa tiit waaw ndax ku nar a dem feneen fu dul àjjana doo ko wax boo ko bëggoon a waxit boo ko bëggoon a waxit malaaka muy téye saw làmmiñ jërëjëf Serigne Touba ku nar a jëm feneen fu dul àjjana doo ko mën a wax même boo ko yéenee nacc lañ lay def sag waxukaay la malaaka ma nacc ni ma téye micro yi jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. ah ñëpp bëgg a dem àjjana dégg nga kenn bëggu ta dem sawara jërëjëf Serigne.